Euh, mbokk yi tey la altana yem ak 9 janvier 2023 soog bu métti am ca Taysir nekk ci diggante Daarul Moxti ak Sarsara tollu ci fukki kilomètre ak juróom ak Daarul Moxti soog bu métti moo am jamono yi nag lañ jot xibaar bi bi 16 jot lañ ko jot wax nañ ne it euh, oto bi bii nga xam ne moo def soog bi ak bi ci des benn bi dafa yóbbu woon ay dafa rob woon ab néew bay defaat demi waaye lu mën a xew daal safar si nañuy vérifier seen pneu oto yi waaye nañuy vérifier it seen oto yi te nañuy daw ndànk te it ñiy yar oto yi nañuy xool at yi ñu am ak ñu bàyyi xel ne dañoo responsabilité ak njaboot bàyyi xel ne it oto boo gis safar ne ca na bàyyi xel ñenn ca gannaawam ñëpp mu dawale am xelam te bañ a yàkkamti te xam ne adduna dara jëru ci yàkkamti safur si daal nañuy daw ndànk lépp nag ñàkk daw ndànk ak ñàkk respecté code de la rek moo ko di kon noo ngi ñaan képp koo xam ne suñu borom dogal na